asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu suñu mbokku auditeurs u Banlieue FM suñu mbokku euh, téléspectateurs yeeg internautes yi ñu ngi leen di nuyu euh, dellu di leen euh, ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko mu def jàmm ci réew mi def ko it ci réew yi ñu wër yëpp ndax nag jàmm si la lépp xej ñoo am mbégte lool janawaat ak internet yeeg. téléspectateurs yi ak auditeurs yi ngir wax ak ñoom li nga xam ne moo di mébét bi nga xam ne am nañu ko euh, ci groupe euh, bi nga xam ne moo di groupe Golbert Média mébét boo xam ne bokk na ci li nga xam ne yitteel nañu lool muy fexe lépp loo xam ne wareef la ci wàllu communication groupe bi taxaw ci def ci li nga xam ne moo di kéemtalaay kàttanam euh, jàppale ñi nga xam ne xëy na naam seen. Euh, mën-mën mbaa bokk seen euh, gëstu demul si yenn bërëb ya ñoom ñi nga xam ne ñu ñëwaa groupe bi ñu jéem a ñun doon seen tànk ak seen i bët nopp doon it seen nopp ci lépp loo xam ne war nañ ko xam ñu xam ko war nañ ko gis ñu gis ko loolu moo di li nga xam ne tënk na groupe bi li nga xam ne moo di groupe euh, Golbert Média boo ne groupe Golbert Média nag sa xel day dem ci ki nga xam ne kii Alioune Baldé Diagne Golbert la Euh, naam mu doon xarit doon am di jàmm yàlla def ci li ci gën ñu ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëw ko mu teeru ko ci àjjana yi gën a kawe moom mboolem julli ñi nga xam ne ñoo fa nekk. Golbert Media nag euh, naam du doon group bi nga xam ne xëy na groupe bu mag la waaye ñu ngi jéem ndax nag daal ci fekk rajo FM bi di Banlieue FM waaye tam ba tey am na benn site internet boo xam Golbert Media. Euh, euh, golbert point com site bi waaye itam am li nga xam golbert media tv mu télévision bi euh, ni ma ko rek ñun information pour dëgër lañ koy pour auditeurs yi téléspectateurs yi internautes yi ñu information. naam de ñu ngi ci région bi moo moo di li nga xam ne mooy jéego ba jëkk bi nga xam ne groupe bi dana ko yittewoo muy lan mooy lépp loo xam ne yitteel na ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci région de saint bi li nga xam ne moo leen soxal ñun groupe bi ñu jiitu ci joxe ci information joxe ci suñu xalaat def ci ay débat def ci ay waxtaan waxtaan wi doon waxtaan politique kese déedéet.

souffle. Nga avons 240 000 hectares de terres irrigables. 240 000 hectares de terres irrigables. Mon nekk ci y a ndar ba ba Bakel. y a 12 mois sur 12 soleil Mudi. bi. la bi mu kon pare ci réew yoo xam Chine la xam taiwan la moo xam yenn réew yi nga commencé sax ay développé li développé bokk na ci mbay suuf ndox naam sax naaj bi wol lool ci ñoom waaye xoolal ñun ñu 12 mois sur 12 kon nag Saint-Louis bu du Sénégal kenn mënu ko weddi Yalla Saint-Louis leneen Tay mom lañuy wax muy lan gaz kon su Saint-Louis dans la région bi nga potentialité économique li la war nañu am ay dana tax nit gindee ko ci am ay xam-xam yu wóor xamit li li li li nga xam ne moom la senegal am nan lay mbir mi di demee nan lay doxee lii fu mu dugg fan la jaar bokkanikoon ni am na ci wàll bu rëy rëy rëy moo tax ñun si suñu mission ak c'est suñu wareef daañu jéem jege ñooñu lépp loo xam ne war nañu ko xam auditeurs yi téléspectateurs yi internautes yi war nañ ko xam ñun suñu liggéey mooy di fexe ba ngeen xam ko kon wax naa leen ne région bi bon dana doon li nga xam ne suñu point focal. naam nag du yem si régions de Saint-Louis déedéet daañu dugg si région ndax ndaxte Sénégal mu ñiiteel des ñëpp waaye nag point focal bi priorité bi la région de Saint-Louis ci l'information.. information information politique information économique information culturelle information sportive information information information lépp loo xam ne na. ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci ndar ak li ko wër incha allahu rabbi Golbert Média dana si taxaw taxawaay bi nga xam ne moom daal lañu fa yéene yi euh, def équipe bi nga xam ne nag équipe bu bu soog soog a juddu la waaye am yéene am yéene lool lool lool lool yittewoo lool doomu ndar yi xam seeni seen seen seen li ñu war a xam xam seen wareef xam seen warugar xam it li nga xam ne moom la ñu moom ñu jël ko ba mu mat sëkk ndax nag euh,

yeneen yi nga xam ne ñoo fi nekk yeneen structure yoo xam ne structure économique booy CSS ñun tàll lañu loxo pour waxtaan ak ñoom pour lépp loo xam ne nit ki euh, nga yeewoo ci saint war nga xam li nekk ci potentialité économique bi nekk sa biir région. kon daañu def ay émissions yoo xam ne yu am solo yoo xam ne émission ci wàllu agriculture la ci wàllu mbay mi ak ci wàllu suuf si ci wàllu dex gi daañu fi waxee napp daañu fi waxtaanee càmm gi daañu wax waxtaanee mbay mi wax naa leen ko am émission yoo xam ne également euh, yu mel na euh, par exemple lu ñu tuddee euh, à bout de juger dana am émission bu bees boo xam ne daañu ko fi amal muy à bout de juger émission boobu nag dañ ko jagleel collectivité locale yi ndax nag Sénégal dafa tënk ci benn benn réforme mu troisième réforme si wàllu décentralisation am loo xam ne ci wàllu compétence dañu ko transféré collectivité locale yi kon war nañ ko mën a waxtaanee ndax na saint louis boo jàppee am na fi ay commune ci biir région bi mboolem commune yi nga xam ne ñoo nekk ci biir région bi parce que ñu yéene dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ndax nag saint louis boo ne saint louis wax naa la ko sax nga ne suuf te bare na nag ci ay ay collectivité locale yoo xam ne tey jii seen problème yépp problème suuf la problème foncier la kon nag war nañ ko mën a waxtaanee bu fekkee ni nekk nga koo xam ne kii dañu la tànn nga di maire ñu dénk la ab collectivité locale sa wareef ak sa warugar mooy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la dénk seen collectivité locale seen maire yi nga xamal leen loo xam ne ñoom war nañ ko mën a xam war nañ ko mën a yittewoo kon nag ñu war a waxtaanee si foncier bi waxtaan ak mais moo tax à de juger dañ ko jagleel exclusivement maire yi collectivité locale yi compétence transférée yi ñu waxtaan ci mbirum foncier bi suuf si ñu waxtaan ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne ci wàllu domaine ak ci wàllu taxe ak yëpp incha allahu rabbi ci à vous de juger fas nañu ko yéene waxtaan ak euh, mbokk internet yi mbokk auditeurs yi. beneen émission boo xam ne euh, bu am solo la ndar démb ndax nag Saint-Louis dafa di euh, dëkk boo xam ne dafa fekkee démb fekkee tey ndax nag Saint-Louis xam ngeen ne duma leen ko jàngal yéen a ko gën a xam moo première capitale du Sénégal yemul ci capitale Sénégal kese déedéet capitale de l'Afrique occidentale française kon am na lu bare bare bare bare bare bare bare mi ngi ci dëkk bi loo xam war nañ ko mën a ndaw xale yu ne génération bu bees a xam mën xam loolu ñu xamal loolu bu ñu ko xamul ndax lu ci lu ko pourtant démb de fii la beneen bi moo di ndar dafa am lu mu baaxoo li it war a parce que nag dafa am ne ñett yoo war nañ ko Saint-Louis le paraître saint-louisien le parler saint-louisien yooyu yëpp dafa yoo xam war nañ ko mën a génne ko théâtre parce que fas nañ ko yéene def fii ci ci ci ci TV incha allahu ay série yoo xam dañuy

ñu war leen présenter saint lucien yi xale wu tey yi ñu xam ñooñu ñan la ñu woon donc émission bi ni mel incha allah rabbi parce que nga yéene bu soobee yàlla euh, amal ko fii ci biir euh, banlieue TV maanaam Golbert TV ak ci banlieue FM. am na également euh, yeneen émission yoo xam ne bon yu mel ne par exemple Petrogaz waxoon naa leen ko sànq mënuñu def émission tey wala boog ay émission ci ay rajo mbaa def ko si ay télé te waxataane wuñu gaz bi ala kulli hal il faut ñu xamal nit ñi fan la ñu lan la ñu exploitation bi fan la toll nan la demee fan lay jaar fan la jëm yooyu yëpp dañu woo ay experts yoo loolu mooy seen liggéey ñu waxtaan ak ñoom. moo tax émission boo xam ne eh, boo xam ne pétrogaz boo xam ne incha ko waxtaan ak suñu eh, également lan la am ci gaz fii ci Saint-Louis ak yeneen émission yoo xam ne yu nous la kon daal ci gàttal door mbir mi waaye nag dañuy wax ne ñun xëy na yéene la am ak jéem waaye lii rafet ak lii jekk ak lii nga xam ne moo baax yéen ko xam ba tax na dañuy xaar ci yéen ñaar benn bi moo di participer activement ci dundinu Golbert Média maanaam seen suggestion seeni xalaat ngeen wax ñu ko lépp loo xam ne yaakaar ngeen ni nii bu ñu ko defee kat dana gën a tax mu gën a mu gën a ñoŋal ci wàllu liggéey suñu liggéey ngeen wax ñu ko incha allah rabbi daañu tenir compte de vos suggestions ak de vos remarques beneen bi ci des moo di euh, dañu lancer appel lancer appel ñi nga xam ne ñoo fi nekk moo xam société la moo xam commerçant la moo xam ku am ku am lu mu bëgg wane ak yeneen yi ni mel parce que nag loolu mooy tax ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay xale seen yéene mooy dundal li di mel affaire boobu dund. Bah, on, on, vraiment, on lance un appel à l'endroit des grandes sociétés qui sont, qui sont, qui sont, dans, la, dans la région et qui boo xam ne soxla nañu euh, visibilité euh, ñoom tam ala kulli xaal ñu ñaan leen ñu ñëw ñu jóg jege ñu donc euh, loolu mooy li nga xam ne daal moo di moom la ñu bëgg a def bokkul ak li nga xam ne it am na loo xam ne ñu ngi koy xalaat di gëm waaye comme ni ko wolof Njaay di waxee rek ndànk ndànk moo jàpp moo jàpp golo si ñaay ba nga xam ne dañuy dox ndànk pour que incha allah rabbi li nga xam ne daal moom la ñu yéenee auditeurs yi ak téléspectateurs yi ak internautes yi ngeen am ko ni ngeen ko bëggee kon nag loolu rek laa bëggoon tënk ci li nga xam ne daal moom lañu bëgg a def jàppale na daal Golbert euh, Média taxaw na tënk na si ñaar ba si ñett ñett yoo xam ni. yoo xam ne war ngeen ko jàpp benn bi nee rajo FM la mu di banlieue FM bi si des moo di site internet bi golbert media point com beneen bi mu di golbert TV bi nga xam ne mooy télévision en ligne bi. kon nag lii mooy li ma leen bëggoon présenté maa ngi leen di gërëm di sant di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara toogu mu may ñu lépp li nga xam ne mbëbën nañu ko te mu doon luñu luñu yéene nit ñi yàlla mottali si daraja sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.